l'émission émission ou à Sénégal. sunu le galaxie si na sociologue enseignant chercheur de université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru quitté itam directeur de recherche ca IAM directeur de la recherche bu IAM bokk itam CNRA euh, professeur euh, Mbass mi bouni amat bu ab deuxième couvre-feu dañu ñew ci approche communautaire bi ngir xex euh, fièvre bi waye démb lu ñu ci couvre-feu bi mu doré ndaw ñi dañoo jog di lac ay pneu lu mel lutax euh, ñom adhésion bobu war ci lu nu mel mënuñ ko def. waaw euh, jërëjëf ginnaaw ma la nuyoo euh, nuyu El Hadj Ndiogo ak ñi liggéey RFM ak auditeur du Sénégal yëpp. Uh-huh. dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo doon jël mesure bi li xew démb maanaam ndaw yi jóg di xeex ak mesure bi dafa mel ni intégré wuñ ko woon ci bi ñuy jël mesure bi man bi ñu jëlee mesure yi man sama wàll bopp wax naa ay nit ñi boo moytuwul li fii dinañ fa jëm parce que simplement boo ko dee xool ba ñuy yëkkati couvre-feu bu njëkk bi ci loolu la ñu mujjee woon donc premier mi-temps boobu foofu foofu la yemoon bu ñu kam tàmbalee deuxième mi-temps dafa mel ni dañuy tàmbalee loolu jëm kaw donc il fallait que ñu intégrer loolu te bu fekkee ni intégrer nga ko da nga naan naka laay def ba sàmmanteeg loolu ba naxanteeg loolu ba du ma yegg foofu loolu nag dafa laajoon liggéeyu préparation d'autant plus que am na laytaay bu fi nekkoon boo ko seetloo une semaine avant sëñ Muntaxa wax na ne nit ñi nañu gën a sàmmonte wu ak règle yi alors bu je crois que bu ñu liggéeyoon ak yenn kilifa yi ba ñoom ñëpp ñu am nekk ci yenn position yi ba pare ensuite ñu xool ci biir communauté yi chef de quartier imam yi

doxal ko dafay a mais bu ñu defee tamit est-ce que dina mën def euh, liggéey bi ko war bu même pour fa état d'urgence bu koy décréter sax foog mu nit ñi euh, bu ñuy muy soog a jël dogal mais après situation bi ngay am situation bu compliquée démb boo xoolee euh, à partir de 19h 18h 19h nit ñi ñi ngi ñi ngi dem ci ci gare routière yi fa di dugg ci yi di ci la ñu bëgg en fait bu fekkee ni da ni naa fexe ba dajaloo bi bu mu am ba euh, wàllante bi bu mu am or li ñu créé démb lu xaw a doy waar la ci am na ci ñoo xam ni jóge nañu 18 heures pour ñu yegg fa ñu jëm mais 21 heures passé na donc finalement euh, moo tax dafay am décision yooyu jël mu baax mais intelligence décision bi loolu beneen affaire la loolu boo ko deful rek dafay indi yenn saay ay jafe-jafe di nga bëgg a def lu baax mais yoon ba nga xam ni moom ngay jaar mu nekk yoon bu nga xam ni Euh, dafay indi ay jafe-jafe bu boobaa nag da nga koy natt loolu dañ koy saytu. ndax yaakaar nga ne li amoon démb mën na amaat tey ak suba. Euh, mën na continuer di am bu fekkee ne parce que tey jii euh, je crois que ki nga xam ni mooy ministre de la santé. ak ministre de l'intérieur am na lu ñuy wax ak nit ñi. Mhm. nit ñi nañ leen déglu. mais man je crois que problème bi nga xam ne moom lañu am ci affaire crise bi mooy du affaire santé kese ak affaire intérieur kese xam nga lool moom mooy lan. mooy damay wax yéen ci mbirum santé keneen ki taxaw yore liifam di dóor en fait nous avons ñu soxla yeneen ministères ministère de la jeunesse ministère des collectivités territoriales ministère de la culture et de la communication ministère de l'éducation ministère de l'enseignement gis nga ñooñu moo suppression suppression poste premier ministre parce que nous avons am koo xam ne coordonner ministère yooyu li ñuy taxaw ci mais culture à communication qui affaire bu mm-hmm. surtout culture amul ko ci ëppale importance. Mm-hmm. artiste yi ci ñuy milieu yi da nga wara wax ak ñom naka wax c'est les bidik c'est les c'est les c'est les mm-hmm. euh, c'est les c'est les c'est les etc. tay ji affaire yi ma fay Touba affaire yi mi ngi fay 24 cas la communautaire. ban stratégie ngay def ba wax ak est-ce que ni ngay des associations ci ASC association politique cest la zone bu melni est-ce que do jaar ci ay daïra daïra bo ministère de la culture ministère chargé des affaires religieuses etc. li fi lañ leen xaar te dafa de de coordination entre ces différents ministères mais beaucoup ministère de la santé ak ministère de l'intérieur depuis le début nak ñetti ministères yi lañ ci gis ministère de la santé mom la luñ ci gis ministère de l'intérieur ak ministère des transports le ministère des Transports a une moindre mesure. Ah. ministère de la santé et des et ak ak ak. intérieur mooy def leen lii boo ko deful ma il faut ñu xoolaat quoi ci démarche bi simplement je crois que bu faites ni liggéey avec plus d'intelligence, plus d'efficacité. Dès que ci conseil des ministres président la ni après ministère sectoriel bu nekk di nga xool laka nga ci mën def pour liggéey ko bon na nga xool mais li ci doon gëna rafet moy mu am coordination entre ces différents ministères té fofu nak bon mom moy mom moy premier ministre parce que bi ñu supprimer euh, premier ministre mom moko mom moko wara gérer est-ce que dina am temps ou matériel u organiser euh, lolu je crois que euh, il faut ñu def ko bu fekkee ni décision yu ñu jël dañu bëgg mu nekk décision yo xamni da fay jall sans créer ay problème mais mais taxawaayu ndaw ñi ñu def ko bur feu ñom ñu génn di manifester di taalipna ak policier yi di kenk kekkantoog ñom est-ce que lolu du inconscience ma ka ñàkk xam wala indiscipline manam ñak ñàkk yar la. non yaakaaruma ko ba en fait euh, da fay nek peut-être ñak xam parce que ñu ci euh fièvre bi gëm nañ ni amagul ba léegi donc ñak xam bi ci dess mom moy euh, ki nga xam ni fay ne bu ma naree faatu ci ci ci ci euh, ci xif man moma moma gënal fouf, may faatu ci fièvre je veux dire simplement que amna ño xamni dañuy taba taaba pour dundu bis bu nek buñu ñu añee ba pare la dem lijjanti ji lu ñuy reeree bu ñu reeree dem lijjanti ji lu ñu ndekki jee suba il faut il faut ñu calculer. mais 28 heures quand même guddi na xanaa kuy lijjanti nag nga ñew ñibi sa kër tok nag quand même ah, dallu. sëñ bi goudi gi nit ñi dafa am ño xamni ci lañuy yëngatu pour liggéey ñi ñi ngi jaay ciéré ñi ñi ngi jaay ñebbe demal ci ko ñi ñii ñi ngi jaay fondé je t'assure ñi nga xamni ci lañuy dundé dundee bés bu <coughs> nekk ki bon légui nak ñoñu bo leen xajé loolu da fay loo lo xamni dafa xaw metti donc beaucoup de kon loolu dafay laaj loo qui ci mënti gis rek euh, faire laaj waxtaan ak ak gis nga message dafa am solo messager dafa am solo donc ci ñan ngay jaar ba wax ak nit ni ab la lu pour euh, faire parce que ni boudé 24 heures ñu wañi ci par exemple 10 heures 24 heures nga dindi 10 heures mu logique gouvernement ah. cest que 24 heures de circulation nañ ci dindi 10 heures. Hmm. mu ci li ciy des muy des 22 deux heures à peu près bon loolu circulation bi dina wàññeeku transmission bi dina wàññeeku loolu moom mooy logique. mais logique boobu da nga koy expliquer waxtaan ak nit ñi ak fa nga war a jaar ba nit ñi comprendre ko bu ko defee nag bu ñu ko comprendre adhésion bi dina gën a simple. léegi nag li ci des moom mooy jubbanti. li ci des moom mooy jooyanti. ñu hmm. xool naka la ñuy def ba jooyantee loolu. mais est-ce que temps waxtaan woowu aussi du gën a tax poussé bi gën a doy waar. mais Georges. Euh, bu fekkee dañuy waxante dëgg. gars yi dañuy wax benn instant ne nañu dund ak virus bi nañu dund ak virus bi mooy nañu responsable ci suñu ay comportement uh-huh. li may wax corona responsabilité. par opposition à corona culpabilité. nañu gën a corona responsable. gën a corona responsable mooy euh, nañu moytu yenn xew yi nañu moytu bu di ñuy takk suñu masque bu ñuy dem milieu public mais loolu am na ñu nga xam ne ñoo waroon toog garantir ko.

créé nañu ñëpp dégg nañ ko Sénégal. lu mhm. ñuy wax nawetaan Covid. Covid donc au niveau de la commune de Grayov, 19 mhm. ASC ñoom ñoo fa 66 quartiers ñu mettre leen en compétition pendant presque 4 à 5 mois suivre compétition boobu ba mu mais lu mel noonu boo ko lancé yaa ngi xaar ministère de la culture qui sa wet yaa ngi xaar ministère des sports qui s'appelle, il yaa ngi xaar ministère de la jeunesse qui s'appelle, wet yaa ngi xaar et cetera et cetera. ba pare nag ñu ñu accompagner dynamique boobu mu mu am na ñenn ñi nga xam ni commencé woon nañu di ko jël di et cetera et cetera mais doo gis franchement accompagnement autorité yi ah mais affaire bi tiens voilà une initiative communautaire yeneen initiative communautaire doon na am ailleurs tiens voilà ñun naka lañ ko mën a jëlee topp ko gunge ko ba pare bañ koo bàyyi plateforme yooyu nga bañ koo bàyyi man appropriation par la communauté appropriation ba pare mu pérenne pérenniser ko parce que loolu du pour corona rek hum. yeneen problème yi nga xam ne bu ñuy wax vaccination des enfants donc koy utiliser ces plateformes communautaires yi nga xam ne ñu ngi commencé dañu am chance chance bi ñu am moy association yi ñi ci quartier yi mbotay yi ñi ci quartier yi daire yi ñi ci quartier yi amna ñu ba pare bàjjenu gox yi ñi ci quartier yi imam yi chef de quartier évêque yi l'abbé yi ñi ci biir quartier yi ñi ngi ci ay kuréel lolu chance la amul ci yeneen dëkk chance boobu boo ko xasee ba am mooy naka nga koy organiser naka nga ban yoon ngay jaar pour que ñooñu jël combat bi liggéey ko ci sa biir quartier bi yow da ngay waxtaan ak ñoom rek bàyyi li ci des ñoom ñoo koy def mais en réalité malheureusement

or boo ko dee xool dafa bëri incohérence ki suñu suñu démarche yenn saa ñu ni nañu tengal yenn saa ñu ni tengal bàyyi yenn saa ñu jël benn décret mel ni décret bi amul Euh, euh, bi ñuy wax ni nañu amna ay garu routière yo xamni moy agréé bo fay jaar dañuy jël ay liste etc mm-hmm. fay fo dem point de départ yi mm-hmm. mi ngi am fune mais il faut ñu organiser ah mais professeur lu jëm ci walum couvre bi ñaar région la Thiès ak Dakar ñu ko ne wax nga ko sànq sa Touba dem rek 24 communautés ben jour chaque jour kaa nga fay gëna yok kaolak aussi chaque jour kaa nga fay yokk desey di gëna yok est-ce que limiter couvre bi Dakar ak Thiès rek région yooyu rek est-ce que euh, lu logique la lu jaadu la ci sa gis-gis. man sur ce plan là je suis d'accord avec maître El Hadj Diouf. il faut ñu xol fi nga xamni ni

buntu ba boo fa jaaree rek yow dinañ la dalal di nga waxtaan la nga bëgg a waxtaan di nga lijeenti ba nga lijeenti jaaraat ci buntu ba dem sa yoon mais malheureusement il me semble que encore une fois cette surmédicalisation gis nga docteur mom danaa danaa fexé ba fièvre bi jóge euh lool rek mom moy préoccupation légui nak mom bu waxé lool ki nga xamni moy njit mom da danaan fièvre bi na fi jóge mais dafa am yeneen paramètres le président dafay croiser ay paramètres yu bari dafay para dafay croiser fièvre bi croiser économie croiser société croiser culture croiser politique yooyu yëpp daf koy croiser soko jël décision mais bo fa boo jëlee décision simplement ci ci ci ci li le médecin bi ci le docteur bi wax té croiser wo yenen élément yi da ngay am ay jafé jafé. loolu mo taxone je suis d'accord avec Charles mom mo fi indi formule bobu bi muy wax confinement mobile Manam nit ñi nañu confiner wu di dox seeni soxla maanaam na nga tak masque na ngay raxasee loxo na ñu fexe ba et cetera mais car yi ñi ñaa fi fii demal ci école yi heure heure pause est ce que amna surveillance xalé yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jaxasante ci biir di tok ci buntu kër yi di ki di génn di dugg ci ay boutique di lek. man dem naa ci benn école boo xam ne dama gis jéki jéki gis xalé yi génn ci biti jënd beñe dajalof ma dugg ci biir école bi ñen ñaa ngi jàpp ndax mën na nek xalé yi ñoo ko yóbbu ca kër ya souvent que euh, feebar bi du manifesté wu ci ñoom ay cas asymptomatique lañ doon la plupart temps yóbbu ko mag ñi c'est ça le problème dama dugg ci école bi gis le directeur d'école ni ko mais man li ma gis ci sa buntu école bi doy na waar mu ni ma mm-hmm. duñ ci man y a un problème donc mm-hmm. loolu moom mooy liggéey bi est ce que couvre feu bi euh, ni mu doon euh, ci tënk rek ndakaar ndakaaru ak Thiès. Mhm. est-ce que lolu taxout ndaw ñi révolté wu naan pourquoi ñun ñun kessé non je je crois que lolu amna ci. Ah. parce que dafa melni dañu dañu bedd ñenn ñi. Ah. mais mais li nga xamni mom mo ci ëpp sol rek moy euh, ño xamni dañuy dundé euh lenn li ba pare ñu tegoon ay acte ñu dund ko. Ah. ba ben instant gaay bayiko bàyyi ko. Mhm. commencé ko waat jékki-jékki daal ni sans préparation ah. parce que ñu ci bari dañ ñun sax ñun affaire bi dafa melni daf ñoo jógee ko rek wacc loolu yëpp je crois que méthodologie bi dañ koo waral maintenant comme am na encore une fois dañ ko war a jooyanti naka la ñuy xool ci stratégie ci communication ba communauté bi comme ni ko président waxee jëlal ko seen bopp peut-être ñu éviter yenn situation difficile yi ñu am actuellement. jërëjëf euh, Djibi Diakhaté sociologue jàngalekat ak gëstukat ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nes tout ñu dalal El Hadj Assane Gueye ci euh, wolof di gërëm El Hadj Ndiogou Diène di nuyu Fatou Dieng